mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu noo ngi sant yàlla di julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam di yeesa sunu yaakaar ak sunu jaayante Cheikhuna Ahmadou Bamba Khadimul Mustafa di ñaan Cheikh Mouhamadul Muntaqa sunu borom yàggal ko fi lool Mbàkke te may ko wér di ko ñaanal njabootam gu tedd gi nu àndal liggéey bi muy soxna Sooda Mbàkke bintu Cheikh Mouhamadul Bachir ak rakam ju baax ji di soxna Astu Mbàkke bintu Cheikh Mouhamadul Muntaqa noo ngi fii nag ci Daaru Minan ginnaaw bi nga xamante ni siyaare nañu sëriñ bi ba euh, jóge fa ñu fi ci Soxna Soda ni ñu koy defee at mu nekk fa seen rek seqante ay kàddu noo ngi siyaare mbooleem fédération bi nga xam ne ñoo ànd di liggéeyal Serigne tubaa te mu toll ci fanweeri daayira ak topp su ma jumul fanweeri daayira ak ñeent muy fédération daayira maam Soxna Jaara Touba Italie. nu ngi siyaare baax soxna Ami Sam mi nga xam ne moo ko jiite te ñu tal ca soxna May Dieng ak soxna Awlo di siyaare ki nga xam ne mooy secrétaire général bi muy soxna Fatou Sile Mbengue mi ngi sama ginnaaw ak euh, soxna euh, Aminata Diop mi nga xam ne mooy secrétaire financier bi. waaye tamit euh, di ziare adjointe muy soxna Ndiémi Thiam Brescia ak soxna euh, euh, Ami Cissé mi nga xam ne moom mooy trésorière fédération daara soxna jaara te nekk Parma. di siyaare ay adjointe muy Sophie Dieng ak soxna na Badiane nekk fële ci Toscana waaye di siyaare tam nga xam ne mooy yore communication bi muy soxna na ba Ndongo di siyaare baax soxna May Fadiama ak mboolem eh, njaboot Serigne Touba gi nga xam ne dañuy ànd ak ñoom liggéey bi bëgguñu ko tudd Serigne bi leen tudd ndax ay taalibe lañ jàppe seen bopp ñu ngi leen di jaajëfal kenn ku nekk ak foo man di bàyyeekoo waaye itam di jaajëfal jàmbaar yi xam ne ñooy góor ñi jàppale jigéen ñi ndax dañuy wax ne da leen un grand homme y a toujours une grande dame waaye man euh, yooyu ñu àndal góor ñuy di ay jàmbaar yi Serigne Touba euh, muy euh, njaboot goo xam ne wax dëgg yàlla seen liggéey dafa rafet lool ñu jiital ci ba Bassirou ja di ko ñaanal mu yàgg fi te ànd ak wér bu mel ne baaxil xadim ak Serigne Moustapha Dieng toftal ci Serigne Abdoulaye ne ci sama càmmoñ nga ne mboolem liggéey bu rafet bii ñu doon jëbal Serigne bi muy euh, dortoir yi te ñu liggéey ko ci wax dëgg yàlla acca ànd ba mucc euh, liggéey bépp ci loxoom la tege mooy superviseur bi nañu ànd tege xeer ba ba nañu jébale caabi yi ñu ngi koy ñaanal di ko tool mention spéciale Serigne Abdoulaye yàlla na yàlla fay barke Cheikhul Khadim sant baax Serigne Babacar Diouf moom tamit taxawaayam rafet lool ba fédération bi taxaw ba léegi benn yoon tàyyiwul ak sëriñ Pape Demba Dia mu soxna Sooda yàlla na ko yàlla doolu yërmaane ko njëgal bàjjen so liggéey bi ci loxoom la ko sëriñ Moustapha tegoon euh, Pape Demba ak mboolem njabootu soxna Sooda soxna Pend ñoom ñëpp ndax dëgg yàlla fa seen wajur wa tegoon seen tànk rek fa lañ ko teg di jàmbaar lool Pape Demba mention spéciale waaye tamit ki nga xam ne Euh, mooy euh, sëñ euh, Babacar Diouf tudd naa ko ak sëñ Mët Thiam Touba Brescia moom tam di ci jàmbaar lool ak seen ndongo lii di Alaaji Cheikh Mbacke Mbuub géwlu Xaadimul Moustapha mel na kon dafa mel ne góor ñi kon yaakaar naa lim naa ñëpp mm, fàttewuma kenn di sant baax tam ñi nga xam ne teewe nañ ko muy soxna Kana Fall sunu ndey di jàmbaar lool nekk Touba Genova soxna May Fadiama lim naa ko léegi soxna Ndey Kebe Emilie Romagna di jàmbaar soxna Jaara di jàmbaar fàgg waaye nag ràññee ko lool ci Touba ca ak kam ki nga xam ne mooy soxna Binta Diop Torino soxna Maam Jaara Thiam Euh, sama sama maam jaaram bopp nekk fële ci tubaa Bergamo ak daayira Touba Veneto Touba Parma Touba Brescia tubaa Torino Touba Novara Touba Bergamo ak mboolem ñi nga xam ne ñëw nañu ànd ak ñun liggéey bi yàlla dogal na nag tey ji la ñu dayee ci kanam Cheikh Mouhamadul Mountakha jébbale ñaari liggéey ba ci njëkk mooy caabi dortoir bi nga xam ne liggéey bu mëcc ayib ngeen ko dana am lenn ci ay image yoo xam da ngeen ko gis muy taxawaay bu am solo wax dëgg yàlla sëriñ bi békki lool ndax di bañ ko liggéey ak yitte ji ñu def ñu sàkkaat mu joxaat ñu yeneen liggéey ndax murit moom du wàcc euh, ñu jëbal ko caabi yi mu ñaanal ñu euh, ginnaaw bi la ñu jëbale addiye yi muy toll ci daayira maam soxna jaara muy alal bay soxna jaaratulaa Mariama ci fanweeri million ginnaaw bi la ñuy jëbale alal bay cheikhul xadim bi nga xam ne ku fi nekk di jëwriñu sëriñ Tuubaa yow la koy jox muy xaalis di murit mu toll ci fukki million ginnaaw bi lañ joxe ci université bi nga xam ne day taxawaay bu am solo te Serigne Touba bëggoon jàng lool Cheikh Mountakha moom la inauguré magistère am ndax suñ Tuubaa dafa ñaanoon ni Tuubaa na doon barabu xamukaay barabu xalaatukaay Tuubaa waj ëruda ba maskana taallumi wa mawdi al fikri tafahumi mu ko def nañ ci 3 millions waaye itam euh, jox ko addiyee Serigne Touba addiyee jëmmi boppam moom mi nga xam ne mooy sunu jëwriñ di jëwriñ Soxna Jaara di jëwriñ Serigne Bassirou jëmmi Serigne jëwriñ Serigne Touba jox nañu ko 1 million addiyee mu toll ci 44 millions euh, euh, liggéey yi nga xam ne tamit liggéey yu ñu def ci yoon wi la soxna yi kenn mënu leen ci ndax ginnaaw bokk lii ñu joxe nag bokkul ak dara dara dara àll bay soxna jaara yi bu ñu joxe àll bay soxna jaara ba noppi dañuy jaajuwaat ñoom ñu seen biir sosu ni ñu soso bi ñuy liggéeyee dortoir yi génn li nga xam ne moo jëm liggéey Serigne Touba def nañ ci orphelinat bi euh, maam jaara 3 millions joxe ci mbalim Touba 500 mille waaye tamit taxaw ci Touba ci kanam def ci lu ci 14 millions euh, 14 millions 410 mille muy 22 mille euros di taxawaay bu am solo xam naa kon ci loolu rek lay joxe kaddu euh, soxna ci la Mbengue muy la secrétaire générale de la fédération daayira Maam Jaara Touba Italie mu ñëw ci lenn ci ay sant ak i leeral. rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulah taala wa barakatuh waa fédération Maam Soxna Jaara Tulaay tey jii ak euh, suñu jëwriñu góor ñi di ziar ñëpp di jëfal bu baax Cheikh Mbacke Mboub ci li wax noonu la demee rek tey ñu boole ko ay chant yoo xamante ni que ñu ngi koy bëral mbooleem daayira yi nga xamante ni que ñoo lëkkaloo def fédération maam soxna jaaratulaay bu Touba Italie di leen jaajëfal boo xam ne jaajëfal boo xam ni am na tàmbale mais amul amul fu mu yem parce que liggéey dortoir bu dee nii ci lim yoo xam ni manqué na at wala ci at lay yem donc du loo xamante ni que lu lu yomb la mais Pastef fu soxna yi moo tax moo wane tey jii ndam bi ñu am donc ñi ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal tam waa daaray Poroxaan ka ca bopp di sëñ aboo Jaxate di jaa di jaajëfal sëñ sëñ Abdoulaye Jaxumpa la directrice Maam Awa Dem ak soxna Maam Jaara Mbàkke moom Sëriñ Muntaxa moom def na liggéey bu mag a mag ànd kook suñu jóorin bi nga xamante ni que moo doon superviseur mooy sëñ Ablaye Sylla bi nga xamante ni que moom ba daayira ba tàmbalee rek 2005 ba tey mi ngi ak ñun mu def ci liggéey bu remarquable ñu koy defal mention spéciale donc maam soxna maam a Jaara Mbàkke moom yombalal nañu lépp loo xamante ni que rek nañ ko au niveau di daara ba mën a eggali liggéey bi nga xamante ni que tey jii moom lañ doon moom lañ doon joxe caabi yi donc may soññ sama bopp di soññaat ñëpp parce que liggéeykat tàmbali na mais nag xam nga murid moom du noppalu donc yeneen liggéey ngi ñëw donc dinañ jaa jaajuwaat bu baax a baax a baax a baax di am mbégte tey jii di yendu fii ci kër bàjjan bàjjen Soda Mbàkke euh, moom Serigne Bassir kontante tey jii jébbale àllarba jébbale liggéey bi nga xamante ni que liggéey bu am solo la ba nga xamante ni que tey jii daal suñu xol yi sedd na lool parce que sëñ bi biñ ko nee dañ doon dañuy ñëw di jébbale liggéey bi moom daf ne daf daf doon daf dafa yaakaaroon dañ koy wax liggéey bi fu mu toll pas joxe caa pas joxe caabi donc loolu jar na soññ képp koo xam ne tey jii fekkeen nga bis bi rawatina ki nga xamante ni que tey di nga déglu vidéo bi donc mooy soññee ñëpp ñoo ngi jaajëfal ñëpp ci liggéey bi ku sori ku ñëw ñi nga xamante ni que ndeysaan bëggoon nañoo fekk bis bi tey jii yàlla dogal ñu war a dellu ca tool ya ñoom tamit ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi ziyaara ñëpp di jaajëfal ñëpp ma jox soxna Ami sàmb rek mu daal di ñëw ci yeneen Ah, yeneen yeneen cant yi tudd ñi nga xamante ni que ñoo àndoon ak ñun ci liggéey bi bisimilah. Touba Parma ci kàddu yu am solo yooyu di jaajëfal nag sëriñ Isaaxa Mbàkke mu Cheikh Amadou Bachir nga xam ne ndigal lii ci moom la rote tabbi ci dongoy soxna yii ba ñu am ci ndam tey tàmbali ko wax ci bismillah rahmaan kodd mu jekk mi léegi kon nag Mbàkke maa ngi koy ñaanal yàlla na ko yàlla may ngërëmul Serigne Touba ci keppaaram mag ju baax ji defal ko sunu bàjjen soxna solo defal ko murid yëpp kon euh, nu jox kàddu gi présidente fédération daayira soxna jaara soxna Ami Sàmm di jàmbaari soxna jaara ñu ngi lay ñaanal bàjjen yàlla gudd sa fan tamay la wér barke sëñ Modou Moustapha auzu billaahi mina seytaani rajim bismillaahi rahmaani rahim maa ngi sant yàlla di julli ci yonent tedd bi di sant seexul xadim di jaajëfe seex soxna jaara di sant bi ma yàlla boolee ak sama ñaari waajur ci kuy liggéeyal seexul xaddim ah di ñaanal soxna Sooda Samb yàlla na ko yàlla may leer fa nekk yàlla na ko yàlla may leer fa mu nekk ñim fi bàyyi it muy njaboot gi yàlla na leen fi yàlla bàyyi fam tegoon tànkam ñu teg ko fi te ñu ngi ko fi teg ñu ngi koy ñaanal fu ñu toll ndax lii lépp ci moom la commencé kon ñu ngi koy sant di ko ñaanal di sant soxna Sooda ndax bam ñu booleeg ñoom ba tey nii mu mel tey moom la mel suba di sant soxna astu bu baax jaar nañ ci sax wante ñoom seenuk sant moom faaw dellu ci di sant it soxna may faajama ak soxna may muntaxaa bu baax a baax ñoom ñiñ bokkal liggéey bi ndax ñoo bokk liggéey bi ah, di sant nag présidente daayira yëpp boo limee rek di nga ndaxte ñoom ñoo waral liggéey bi ba liggéey bi toll si fii di sant it bureau bi ma àndal ñu topp ci sama ginnaaw muy soxna May Jang soxna Awa Lo soxna Fatou Silla secrétaire général soxna Ami Cissé soxna Aminta Diop soxna Sukay Badiane soxna Sëfi soxna Jéeme Thiam ak soxna Jeynaba Ndionga ndaxte lépp lu ma leen sant suba ba ngoon duñ ci teg baat bu leen neexee bu ñu bu leen neexul dinañ ko def te it wax dëgg yàlla am loolu mënoon naa bañ a nekk di sant it ñi ñu àndal ba ñëw ci liggéey bi tey ndax euh, buñ ko seetee soxna Xadi Ñang mii moom ñu na ànd ñëw nekk rajo Emilia soxna Fatim Mbeng ak soxna Ndey bi mii ci mbir ki démb laa leen woo soxna Ndey Kebe démb la fi jóge dem Dakar dafa fajulwaat moo ñu fi jiitu mook soxna Faati Mbeng ànd dem teewal ñu ca mbale ma kon ñooñu mënuñu leen a fay di sant soxna aji biige teewal fi waa waa nu waaroo pap soxna pa euh, sëñ pap euh, Seck di sant nag soxna Asu Ndaw ndax dafa yor daayira di ci doxal loo xam ne daanaka bu ma yeboon ne Amérique état li ñoo yem lu ñuy doxal ci daayira te teewul dafa bàyyi léppam ñëw ànd ak ñun ci suñu euh, liggéey bi kon ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal yàlla moom itam liggéey bi mu nekk yàlla na ko ci sëñ Touba wala soxna jaaro wala ko ci moo waa Amérique gi mu ko bokkal di ñuy ñëpp nag boo limee rek dangay ngay juum soxna maam Jaara Caam moo fi teewal waa Bergamo mm-hmm. boo limee rek da ngay juum soxna ma dellu siwaat yi ci soxna may faaje ma mii di ko sant bu baax ndax day def te bëggul ku ko wax te loolu it ku koy def ñu wax ko ndax dañ ko dañ koy seedeel soxna astu ak soxna sooda mii ndax dettuwaar bi bëri na lum ci def te buggul ku ko wax lépp lu jëm ca sanitaire yeeg yëpp moo ko def boole kook nag ni bu ñu buggee làmpar lu ne mu jox ñu ko ñun ñoo ko gàntal ndax it wax dëgg yàlla am bët du yan wante xam na lu bopp àttan te mënoon naa toog ne day liggéeyal euh, maamam rekk wante dafa xool ci soxna Sooda ak soxna Astu ni mu ñu ànd ak di jël seen alal seen lépp di ci def ba tax loola mu ànd seen doom ñu ànd koog moom fekk ñu ci loolu kon ñu ngi leen ñu koy seedeel mbooloo mi ñëpp di sant nag fédération soxna Jaara bépp boo limee rek da ngay juum te bu ñu sañoon duñu fàtte kenn ndax président yi ñoo tax liggéey bi yegg si fii ndax ñooy joxe seen xaalis te xooluñu dërëm lañ joxe xoolu ñaar dërëm lañ joxe musuñu ne li ñu joxe fu mu dugg wala dara musuñu ñu ko laaj itam ñooy ñëw ba jébbule rek seet nañu neex ñu jébbule ko dem jox leen i këyit te loola mënoon naa bañ a nekk kon ñu leen di sant bu baax di leen ñaanal yàlla ñi ciy xale liggéey bi yàlla na des ci seen loxo bañ toog ba di ko jox seeni doom ñoom itam di ko sàkku ci yéen ñi nga xam ne nag ah yéen lañu yaakaar itam ngeen ñaanal leen ñu di leen ñaanal di balu àq ñëpp nag di baal àq ñëpp di wax ne kàddu gu gudd na wante maa ngi ci balu àq dama mënut wax rek moo tax wante nag maa ngi ciy balu àq bu baax di sant yéen Ablaye Sylla nag bu baax nag fu cant toll ndax liggéey bi keroog ci sama gémmiñ la njëkk jóge ma ne nañ ko jox Ablaye ñoom ñii kenn ku ci nekk na ma yow day li nga wax sax xamoo ànd ci loola nag ñëpp ànd ci amul keroog ca bis ba koo xam ne tàllalu loxoom ne li nga wax dëgg la kon wóolu koo tax ñu jox ko ko lañ wóolu woon ci moom lépp it gis nañ ko ñu ngi koy sant di ko ñaanal yàlla moom itam yàlla na toog ba njabootam li muy liggéey ci seexul xaddim ñu aw ko asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu. rafet na matale na. kon xam naa mbeng di bàyyi Fall soxna jaara moom itam yàlla dogal liggéey bii ne mu ci loxo muy jàmbaar lool ñu ngi koy ñaanal gudd fan ko ànd ak wér mook bàyyi Cheikh ak njaboot gi yëpp xam naa kon dañuy jox kàddu gi rek soxna sum Cheikh Mouhamadul Moutada mu sànni ci kàddu daal suñu bàjjeen soxna Soda di ñaanal yaaram bismillah <coughs> maa ngi nuyu mboolem ñi fi sant Serigne Touba Xaadim Rasoul sant Cheikh Ahmadou Mourtada Mbacké ñu boole Cheikh Ahmadou Bamba di ñaanal Serigne Mountakha mu yàgg fi ci wér di ñaanal sunu jëwriñ Serigne Mamor moom tam mu yàgg fi ci wér di ñaanal soxna Soda mi xam na tey bi ñu àndee moom tey nekk këram gi demoon sëñ Mountakha ñu ngi sant soxna Soda bu baax bu wér a wér tey moom bisu mbégte la bisu. bu am solo la ci ñun. Mm-hmm. ndax sun siyaare bi ku ne xam ne at mu jot dañ koy def ànd ak sunu mag ju baax ji soxna Soda mu ànd ak ñun yóbbu ñu ci sëñ Mountakha kon ñu ngi jël nuyoo beeg siyaare bi yëpp teg ko ci loxob soxna Soda di jàlleen ñu ko ci soxna Ami Samb soxna Ami Samb mi xam fédération bi mu jàlleen mu ko sama mbokku soxna yi ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn ñu ngi leen di siyaare. di am mbégte ak kontaan rek di ànd ak liggéey bi e, fuñ toll ñu fas nañu yéene di ko ànd ak yéen rek di ko ànd ak bu baax rek kàttanu yàlla ci barke Serigne Touba barke Soxna Jaara di ñaanal soxna Sooda Samb sunu yaay jooju yàlla na yàlla yokk leeram yàlla yóbbu ko ci àjjanay firdawsi ñu ngi koy ñaanal bu baax ndax liggéey bi yëpp ci loxoom la jaar kon ñu ngi koy ñaanal di sàkku ci ñëpp ñu ñaanal ko di sant euh, soxna Astou Ndaw moom jóge États-Unis di présidente fédération bi nekk États-Unis di la sant euh, sëñ Ablaye sëñ Ablaye Sylla ma ne ko ñu ngi lay sant bu baax comme ni ko soxna mi Samb waxee di sant Cheikh Mbacke ci taxawaayam ci liggéey bi ndax boobu léegi noppaluwut day ànd ak ñun liggéey bi fu ñu ngi koy sant bu baax sant euh, soxna May sama doom ji soxna May faa Fadiama ñu koy sant bu baax euh, bàyyiwuma sama mbokk soxna yi ñu fi nekk ñëpp wax dëgg yàlla ñoom dama yàgg ak ñoom Cheikh mu Moutara boole ma ñoom may ànd ak ñoom liggéey bi booba léegi ca soppeeku wuñ changé wuñ ca lu ne xajoon na fi waaye maa ñoom rek maa ñoom rek kon ñu ngi leen di ñaanal di sàkku ci soxna Soda mu ñaanal leen yéen ñëpp ba liggéey bi ñu jébbale tey sëñ Mountakha ñu demaat ba sëñ bi santaan ñu yeneen liggéey bañ ànd koog yéen bokk liggéey bi di ànd koog yéen di nuyu suñu mag jële soxna Penda Fall ñu ngi koy nuyu bu baax di doomu yaa sooda ñu ngi koy nuyu maa ngi nuyu ñëpp nag tey moom baat bee dee xam nga coono gi boo ci jógee sa bi day ba léegi baat bi changé gut waaye ñu ngi am mbégte daal di leen ñaanal lépp lu ngeen man bu déwénee yàlla na ngeen ko gën na ngeen ko gën a man yéen lépp lu ngeen bëgg yéen a ko xam yàlla na leen ko soxna jaara defal yéene ji ngeen am ci soxna jaara am ko ci liggéey sëñ Touba bii yàlla na leen yàlla yokk wërsëg bi yokk xéewal bi yokk jàmm ji mboolem ñu ñëw ak ñu ñëwoon ñëpp yàlla na leen yàlla dimbali taxawu leen barki sëriñ tuubaa kon nag ñu bàyyi rek soxna Soda ñaan jërëjëf kontaan nañu yàlla na ko yàlla nangul suñu ànd liggéey bi ba fu soof suñu borom soxna Astou dafa jóge ba États-Unis def lu rafet ndax dafa jiite daayira maam soxna jaara ñoo xam ne liggéey bi def ci la ak sotti ci la ak def ci kon ñu jox kàddu rek mu ziyaare bokki taalibe yi taala rajim bisimilah rahmaani rahim di wax asalaamaaleykum rahmatullah ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonent yàlla Muhammad sang sang yi sant Serigne Touba Cheikhul Khadim ak soxna jaara di ñaanal sëriñ Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool te mu wér di ko ñaanal kilifa diine kilifa aada yi di ko ñaanali ay rakkam ak ñëpp ñi nga xam ne moo leen jiite ci yoonu murit ñu ñëw nag tey jii am nañ fi kàddu amuñu fi kàddu ndax ñun suñu teew rekk doy na suñu kàddu dañ naa sa jëmm rek bu wees bu taxawee rek mel na ni wax nga te dañoo bokk lépp ñu bokk ko nag soxna Ami Samb mii di jëwriñ ci soxna Sooda Mbàkke mais tamit di jëwrin di suñu kilifa ñu daan ko fekki ca këram daan fas fekki soxna Sooda sàmm yal na yàlla yokk ay leeram soxna Penda Fall mi ci sama wet di sama wujju ak ñu koy nuyu di ko ziyaar di nuy soxnaa su Cerno bi nga xam ne tey jii nii mu àndeek yéen ci bis bii tey ngeen di joxe caabi yu noonu la ko àndee woon ak ñun ci suñu doot ba ñu ko ba ñu ubbi suñu poste de santé kon moom liggéeyu Cheikhul Khadim bi ak Cheikhu soxna jaara bi daf ko ñor daf ko bokk ak ñun démb bokk ko yéen démb te dellowul ginnaaw ba tey kon te bu ko neexoon mu ne Mbàkke laa sant ni ko soxna Sooda defee. Mhm. ak waaye defu ko dafay ñëw rek ni ba sëriñ Mutala daan jóg muy tuut tànk da ñun ànd ak moom mhm. fépp ci àddina bi muy dem booba sëriñ maam moo nekkagul xalifa te ba jusqu'à teggeegul ay tànkam soxna Ami Sam mii nag. day jëwriñ ju mat jëwriñ mm-hmm. ndax soxna soxna sàmm di bàjjanam da ko jëloon teg ko ci kanamam bàyyi kook liggéey muy koy liggéey ba yàlla weddi moom mu dem wuy ji continuer nag liggéey ba nga xam ne moom lañ ko bàyyee loon te nee nañ ko yokkul nag danga nga wàññi waaye nag moom wàññiwul dafa yokk bokk ko nag ak njabootum soxna Soda Sàmm ñu ne waat nag soxna ñoom ne soxna Ndey kebeek ñi nga xam ne ñooy jëwriñ yi mu àndal ak secretaire général moom itam ak soxna maam jaara mële mu gab ak kii soxna maam jaara Thiam bergo moom mi nga xam ne ñoo bokk ca PDS <laughs> te mosu ñoo gisee yàlla def lépp nag muy lu rafet ñun dañoo ñëw taxaw ne dañuy liggéey soxna jaara tudde nag suñu bopp soxna jaara xam nga nan la ñu tudd confédération soxna jaara confédération soxna jaara mooy jëwriñu soxna jaara gune dem ca daara ja am loo fa def def boobu nga koy def nag mooy soññ ñi nga xam ne nii ñoo ci des te defaguñu fa dara kon tey bu waa Italie ñëwee nii dégg naa waa Espagne sànq ñu joxe seeni i te ñeneen ak ñeneen a ngi ñëw di nuyu nag soxna maam jaara Mbàkke moom itam mu Cheikh Moutada mi nga xam ne nii sëñ taxaa mi nga xam ne sëñ Isaaxa ma boole loog moom ma taxawal ko jëwriñ jii tey lii mu nekk tey jii muy fédération bi man mi maa ko taxawal sëriñ mun Isaaxa ma boole woon ak moom ne man maa bëgg nga jàppale ko ndax xam nga yoon wi te moom xamul yoon wi te mi ngi yor daayira waaye nag muy muy muy jëwriñ joo xam ne nag ku mat jëwriñ du noppi di ko wax di noppi di ko def nee na ba ngay ndaw ko ndaw ku ndaa boo xam ne mënuma laa kale kale la damaa jafe loolu dama lay ñaanal rek kon soxna euh, euh, së së sëñ Abdou ñu ngi lay ziar. di bëgg ci yow xam nga lu yokk bëgg ci yow saa yoo taggee suñu maam yi rek maa sama bëgg laa may soxna su Mbàkke waaw kon dañu lay ñaanal fan bu gudd ak wér lii la sëñ Isaaxa jox yàlla na nga ko ràppal ak jàmm ak salaam di nuyu nag waa fédération daayira soxna jaare itali France Espagne fépp dans le monde entier ba ci senegal ndax dañu bëgg waxoon naa ko soxna Ami nañ ci taxaw soxna Ami muy confédération bi confédération Maam Jaara buñ ci taxawee lépp lu manqué ca daara ja ba ca puuru mburu danañ ko fa def mu indi xaalis boo xam ni te delluwaat ci liggéeyu soxna jaara bi ba ñun ñii lu ñu manqué te mataluñu ko woon daara ji dina ko mën a génne loolu laa wax ne naa leen ko waxaat ñu def ko jërë ngeen jëf wallaahi wallaahi wallaahi jërëjëf soxna Astou Ndaw kàddu yi rafet na ba am na solo yàlla yàlla nangu ñaani te boole ko kon nag ñun ñëpp nag nu déglu kilifa gétaay bi soxna soo Mbacke bint Cheikh Mouhamadul Bachir mu yëkkatee kàddu ñaana nunu euh, yàlla na ko teewi bari kenn bañ a manqué daal di Touba Toscane yi mbooloo mi soxna Soda Mbacke bint Cheikh Mouhamadul Bachir nee na asalaamualeykum wa rahmatullah man de moom seex li may def moom li ciy jiitu ci mooy sant rek. jiitu mooy sant rek. ak cant moo ci jëkk moo ciy mujj. santal sëriñ bi nag. santal njaboot gi takku jàpp ci ne ci ginnaawam jàpp ci liggéeyub soxna jaara bi. maa ngi leen di santal sëriñ bi. maa ngi leen door leen a santal sama bopp. nag sama cantuk bopp. def nii ci kër gi. ndax lii ngeen def nii ci kër gi. <coughs> loolu kii ko waral loolu li ko waral rek. mooy ak dëggu. te bu leen neexoon te bu leen neexoon nag ngeen jëm feneen. te yàgg naa leen wax fu ngeen jëm te yàgg naa leen wax ne bu ngeen ñëw fii sax fu ngeen jëm ma ànd ak yéen. yàlla xam ne ngeen dem feneen ngeen ñëw fii laa yemale. kon nag bëgg ci ñoom kon nag benn bëgg naa ci yéen mbëgg moo xam ne. mënuma ko sax a wax. dañuy nekk ci bitim réew. dañuy nekk ci bitim réew. di def seen waxtaan yi ñuy wax. di ma ci tudd. di ma ci jiital. te duñu ne soxna si dégguñu ko. te duñu ne waxu ci. duñ te sama xol nag munte weesu. nekk fi ma nekk ci yéen. yàlla xam na ko kon maa ngi leen di sant di leen ñaanal yàlla defal leen seenug bëgg ci liggéeyub sëriñ bi barkeb soxna jaara maa ngi leen sant bu baax maa ngi leen di ñaanal di ñaanal soxna ami sàmb dafa ne woon rek ci ginnaaw bàjjeenam ba soxna Sooda Sàmb yàlla na ko yàlla dolli yërmande ak njëgal bañ ko gisatul it soxna soo soxna Ami Sàmb gën a laxasaayu rek liggéey bi gën a jëm ci kanam rek kon nag yow soxna Ami Sàmb soo sant rek lañ am di sant nag sama rakk jii di soxna Astu Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Moutada di seenub sëriñ ba noppi ànd ak yéen. ma noppi ànd ak yéen. am ab yar. maa ngi koy sant di ko gërëm. waaye li ci am solo lépp rek mooy sant naa ñëpp. Hmm. kon nag soxna si nga ñaanal lu mbàkke yàlla na ko yàgg andi yàgg ko ànd ak yow te day ca ngërëmu Serigne Touba waaw soxna si ne ni ngeen di ko gën ci Xaadim Seck amin ya rabbi amin mbàkke amin